ak koor gi. demam gii dee sax ko gën dem goo xam ne xañ morom ji mënoo faste allo waaw kooku Mor waaw waaw man la man la man la Youssou Ndiaye na nga def. ah Ndiaye. laa dégg. Ndiaye. naka coono yi waaw waaw waaw waaw kay. waaw waaw may ma tuuti ma ma ma dalal sama gan gi. Ndiaye may ma tuuti rek. waaw naa daa war ci kàttanu allah. waaw waaw waaw waaw. waaye Mbow yow da nga maa fekk dégg nga maam ma woo ma wax rek nga ne ma salaamaaleykum. maanaam yow lay sa problème mooy fi mu toll nii ah bu la neexee nga ngal-ngali ci élise ba ne xaaw parce que benn ah yaa ngi nii rek yow daal da yow daal doy na waar rek. man du ma la du topp ndax xam naa ne weeru koor weer a jàpp. jërëjëf yow moom boo wooree da ngay saa di woor yàlla ko digle. Ndiaye tey sonn na xam naa lool moom sonn na lool man man mi wuuru sax xam naa ne man. woor gi daa métti waaw bi may dawee sama kër di la seet fii. maanaam léeg-léeg day mel ni day mel damay dégg ay way ay way way yoo xam ni man xam ma wayi ku koy way man daal xam naa ni jee koor gi koor gi ko keneen santaane ku dul yàlla ah. dana doy waar de naa la si xamal nag lu tudd bëriwul yow moom moom jàmbaar nga ndax wax dëgg yàlla comme yaa ngi woor te man xam naa ni jàmbaar nga waaye man kay jàmbaar la yaa ñàkk jom rek yow kay yaa ñàkk jom wallaay salaaw du lool amoo jom man xam naa ne moo jom salaaw du lool de ah, amoo jom de ah, yaa a woore maaleykum salaam waaw waaw waaw waaw. <laughs> eh kaay. yow da ngaa yéex a ñëw nag. ku la yónni sa papa Youssou. baax na doxal doxal doxal. wuyu ma bul sori na kër gi dégg nga bu sori kër gi gis nga sëñ Ndaw. suñu borom tabaaraka wa taala moom bu yàlla dogalee moom ci dogalam mu def la ni nga ah xam nga bu yàlla dogalee mënoo woor. ah gis nga sëñ Ndaw suñu borom tegul kenn loo mënut. wooroo lekkoo naanoo. man ngaa woor. waa Ndiaye Ndiaye nag ma wax la nag Ndiaye kon da ngay yow da ngay lekk urine gi nii yow Ndiaye. xam nga suñu a ah xam nga lii boo ba yow xam nga eh, xam laa la wax yow amoo jom de. xam nga boo naa nga naan suñu borom xam ma lan tabaaraka laa. Ah, yaa ngi may dégg nga boo tuddaatee suñu borom ci caaf si ma lakk solo ban yow. kon nag ba ma commencé boole. suñu borom. yow yàlla moo dogal nga wér. macha allah mën ngaa wor man ma feebar wopp du ma lekk gerte di naan dox. xamaloo ma dara. ak ah, kay xamaloo ma dara médecin bi wax na ko. eh médecin bi day kàcc. kàcc médecin bi day kàcc. wax na dëgg waaw médecin bi day kàcc. xam na ni man damaa feebar xam na ni yow mii da ngaa wér. Hmm? xool ma xool ma may ma man may ma xam nga ma wuy ma wuy ma. waaw yow mu doon ñu. waay waay bu ma bu laal yow. yaa ngi bëgg de. xam yaa ngi bëgg de. maa tay. maw waaw man wóoru ma de boo wóoru li sama yoon gis nga ko ma tëj jang wóoru ah! wóoru ma parce que bay abo mbay day woy mbaw san mbaw san mbaw mbaw ngaala naa la rey yow naa la rey yow <laughs> sama